waaw donc li ma mën a wax ci effectif mooy que donc tout à l'heure gis ngeen entraînement bi am nañu absent yu nekkul ci séance bi mais absent foofu du dara c'est parce que simplement Ballo Touré dafa am adducteur depuis match bi keroog bi mu duggee euh, Bamba également dafa am benn choc démb mais teewul ko également aussi nekkul lu lu lu metti di ko bàyyi mu reposer wu et ensuite également Sadio bi nga xam ne également aussi vraiment mu ngi ci càmm il se Bamba oui Bamba j'ai dit oui dafa am benn choc. yan méchant. mais c'est pas méchant c'est pas méchant. est-ce que tey pare nga tamit pour mën a. waaw Ismaïla bon je que loolu peut-être ma ba ko réservé ko entraîneur bi question bi entraîneur bi mais mën naa am peut-être yokk ci bi peut-être peut-être. Euh, benn jóge euh, bi cadre bi gis nañu adéquat na waaw non nag vraiment moom c'est sûr que moom cadre bu mel nii je pense que yéen vous êtes témoin mhm. c'est cadre bu nga xam ne vraiment euh, ça nous a permis de bien travailler d'être à l'aise et ensuite vraiment liggéey boo xam ne bu mucc ayib l'accueil très chaleureux vraiment espace vraiment wu ñu am ko xale yi mën a doxantu dem effectivement partout Et je pense que cadre bilan tamit dañu liggéey liggéey bu baax a baax a baax vraiment et bon c'est sûr que on va pas ñu am cadre mel noonu ñu demee Yaoundé parce que c'est vrai que bon Yaoundé c'est un peu serré déjà l'hôtel bi ñuy dem déjà c'est en pleine ville mais on va essayer quand même de nous adapter par rapport à ça bon de toute façon il faut il faut bien s'accommoder. Sénégal bi match bi day ñëwaat pour ñu waxee caatum benn bi lan nga mën a wax par rapport ak. waaw bon xam nga Guinée équatoriale également aussi bon dafa nekk équipe ba nga xam ne il faut nga jox ko également aussi respect parce que bu egsee fii c'est parce que effectivement dafa am numéro je pense que. avant ñun wala contre Tunisie wala contre contre euh, donc ça veut dire que c'est une équipe bu nga xam ne ki faut respecter mais ñun en bu koy ko waxee ñun dañuy dem ak suñu propre force la ñu demee ñun n'est-ce pas donc ñu war a def et je pense que loolu moo ci am essentiel. ñu bi ñu jël ci compétition globalement. waaw bilan bi ñuy tiré mooy comme ni ma ko waxee bu njëkk bi mooy bon compétition bi dafa am particularité. mooy contexte bi nga xam ne moom la ñuy organiser CAN bi parce wax naa ni que ne d' abord équipe yu bari peut être seen préparation xaw na tronqué ñu waxee seen i joueurs yi en Angleterre en Europe war nañu mën a téye ba le quatre wala cinq donc ba compromettre seen préparation seen équipe beneen bi également mooy Covid bi je que touché na équipe yu bëri rawatina ñun ak Sénégal ma aussi mais comme ni mu ko waxee également aussi bu mu jotee mais am na jël na ci ay yu taxaw vraiment euh, ak beaucoup de sérénité vraiment taxawu xool effectivement ni ñu ko war a et je pense que euh, li ñu ci def ba nga xam ne actuellement moo ñu indi fii mooy loolu mooy loolu mooy liggéey bi nga xam ne vraiment téye nañ ba xam ne peut-être difficulté yooyu dama dañ ko transféré wu nekk ay euh, mu nekk ay euh, des choses faciles que loolu c'était important maintenant beneen bi comme ni may wax mooy effectivement comme ni ñu ko waxee am na équipe yu bëri yoo xam ne tey yaakaaroo wuñu peut-être que dañoo ñëw pour mais dañu dañu sonal bokk équipe yu bëri ça veut ba nga xam ne yaakaar nañ ne sax ni mais qu'est-ce qui se passe mais dara xewul c'est parce que simplement équipe yi liggéey léegi équipe kon ma ko waxee FIFA dafa jox jumtukaay pratiquement équipe association yëpp pour nga mën liggéey c'est parce que ci ñëwul rek c'est parce que da nga bëgg liggéey mais vraiment nga xam ne fi ne nii vraiment yoruloo comme comme matériel comme disposition pour mettre en place un bon travail sa biir association comme ni ma ko waxee bu dee terrain FIFA da la koy jox bu dee formation entrepreneur FIFA da la koy jox bu dee matériel d'activité ay centre de formation ay centre de préparation jox la ay billets d'avion pour les matchs amicaux je pense que donc vraiment équipe bi nga xam ne jël nañu exploité nañu loolu ressources yooyu je pense que commencé na commencé feeñ léegi à travers cette le futur. voilà mu nekkoon Mar mooy directeur technique national tey moom moo doon wax ci kanamu taskatu xibaar yi gis nga noonu kon constat bi tey mooy absent yi. ki uh, nga xam ne mooy sa Mané uh, Bamba Dieng tamit yeneen choc bu léger bu mu am Balla Touré naka noonu sinon ñu ci des ñoom ñëpp ñëwee nañu teewee entraînement bi alors merci beaucoup xam naa on se retrouve pour la dernière séance d' entraînement match uh, bu ko defee ñu defal leen bilan bi wax leen ci test PCR Covid yi wax tamit ci li nga xamante ne moo jëm ci préparation ak état de santé équipe bi jërëjëf.